الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني في الله فإن الله تعالى أوجب علينا طاعته وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وجعل لله حقوقا على عباده لا يشاركه فيها أحد لا نبي مرسل ولا ملك مقرب وجعل لنبيه حقوقا على أمته لا يساوي فيها أحد من الخلق قال العلامة ابن القيم الجوزية لله حق ليس لعبده ولعبده حق هما حقان لا تجعلوا الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان وحقه صلى الله عليه وسلم علينا محبته وطاعته واتباعه وتوقيره واحترامه من غير غلو ولا إفراط كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تطروني كما أترت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وقد نهانا صلى الله عليه وسلم عن الابتداء في الدين فقال إياكم ومهدثة الأمور فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة دلالة رواه نسائي إخواني في الله لقد حب الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم من القصائص القوية والصفات العلوية والأخلاق الرضية ما كان داعيا لكل مسلم أن يجله ويعظمه بقلبه ولسانه وجواره mbokk yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci tur yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal suñu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dooli xéewal te musal ko xam ngeen ne weer wi nu nekk mooy weeru gàmmu ci la yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ganee àdduna waaye lenn ci ñun jàpp nañ ne màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy toog ba fukki fan ak ñaar ci weeru rabiul awal rek ñu defar suñuy baas indi suñuy nag lekk suñuy cere sikkar dem ñibbi nit ñi noonu lañ gisee ne la ñuy màggale yonent yàlla muhammad fekk fa inna allaha taala awjaba alayna taatuhu wa taatu rasuli fekk li war te muy dëgg te moo war a nekk te mooy li am mooy yàlla daf ñu sant ñu topp ko waaye yàlla dafa santaane ñu topp yonentam atiu llah wa atiu rasul intaha topp leen yàlla topp yonent moom yàlla mu defal boppam ay àq mu ne lii laa moom bokk ma ko kenn bu ko kenn jox kenn li ma moom nañ ma ko jox man yàlla ginnaaw moom yàlla ba mu leeralee ay àqam ba jeex mu leeral àq yi yonent bi moom mu ne yonent bi lii la moom jox leen ko li moom bu leen ko jox kenn mais tey ñàkk a jàng ak diine ñàkk bu mu ñu ñàkk yitteel dañu jël àq yàlla jël àq yonent jël sunuy àq waay jur jaxase ko ak àq ñeneen kenn xamul mbir mi lu muy nuru yàlla sax ci boppam ay àqam kenn joxatu ko waxuma laak nag yonent bi ku violé àq yàlla violé àq yonent kon sa àq way jur yow ci sa bopp kenn du ko waxati kon mbokk yi dina jaadu ci ñun ñu xam ne ak yàlla yàllaa ko moom kenn amul droit jaawale ak yàlla ak ak keneen kenn amul ci droit waaye ak yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam moom moom yonent bi moo ko moom moom yàlla ay aqam laa yusaariku laa yusaarikuhu fiha ahad kenn waru cee bokk laa nabiyun mursal du yonent bu yàlla yónni ibrahima ci yonent yi màgg ci yàlla yónni ko muusa nuux isa muhammad ñii ñooy juróomi yonent yuñ tuddee ulul azmi li ñuy màgg màgg màgg kenn amul droit jël àqu yàlla di leen ko jox kon keneen waxi noppi wala malakun muqarrab du malaaka bu màgg ba jege yàlla jibril xoolal daraja bi mu am yàlla moo ko tagg ne zi quwatin inda zil arsh makinin muta thamma amin mais saa yoo ko ñoddee ba bu ko jegeel yàlla yàq nga ko dafa am fu mu war a yem moom foofu la war a yem moom ci boppam xam na ne dafa am place boo xam ne moom jibril fii la war a yem laylatul isra wal miraj jibril ak yonent bi ànd nañ mu yóbbu yonent bi ci fee yu selli waaye dafa dem ba ci yàgg mu ne ko man munatuma dem man jibril fii laa war a yem bu ma fi paasee dootul baax wa ma minna illa lahu maqaamum maalum amul kenn ci ñun lu dul am na place bu mu war a yem léegi nag ñun ñoom ñun nag moom waxuma la malaaka waxuma la yonent da ngay dégg fii ñu ne sëñ diw yàlla la waxuma la sax ñu ne sëñ di waa wa yàlla la waaye dañuy fekk fi benn sindax ñu jël ko teg ko ci kaw yonent bi yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal nañu yàlla jubal mbokk yi ku nekk dafa am foo war a yem loolu bu leeru suñu bopp dañuy bokkaale ba dee ma ni jibril laa wax li muy màgg-màgg dafa am fu mu war a yem moom ci boppam xamoo ko wax yàlla wax ñu ko ci quraan wa jaala li nabii huquqan yàlla utal na yonent bi ay aq ala ummatihi xeet wii ñun ñu toog fii ñun ñu julli si ajjuma ku nekk yonel nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aq bis boo faatoo aq yooyu joxoo ko yonent doo dugg aljanna xeet bi yépp a yore yonent bi aq koo gis muy daagu gémmiñam mu ciy génn ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah yoreel nga yonent yàlla muhammad juróom ñetti ak boo ci fellee benn wala nga wàññi ci dara yowmal qiyaam doo dugg aljanna ak koo mën a nekk ixwaani moom yonent bi ay àqam bokk ko kenn laa yusaawi fiha ahad min al xalq mboolem mbindeef yi tollale wuñu ak yonent bi ay àq yonent bi ay àqam passé na àqu doomu aadama yi borom xam-xam bu mag bu tudd ibnul qayim nee na lillahi haqqun laysa li abdi wa li abdi haq huma haqqaani la taj'alu al haqqayni haqqan wahid nee na yàlla dafa am ay àq yu mu moom ci jaam yi yonent yàlla muhammad am àq yu mu moom ci jaam yi jaam bi am àq yu mu moom nee na àq yi buñ ko jaawale buñ ko jaxase buñ jël àq yépp def ko benn àq li yàlla moom li jaam bi moom ñu jaxase ba kenn dootul xam li yàlla moom ak yow li nga moom loolu kenn du ko def ñaar yi yemul xoolal tey ni ñu yëkkatee mbindeef yi di leen màggal di leen takkal ay grade yoo xam ne yonent yàlla muhammad sax amu ko yaakaar ngeen ne xeet wi yéen mun ngeen fee màggal kenn ba mu raw yonent yàlla muhammad yaakaar ngeen lool yaakaar ngeen lool yéen ne di ngeen di jël nit di ko bakk di ko tagg ba mu raw yonent la ilaha illallah aboubacar sax mënuñu am sénégal ku ko gën aboubacar sadiq yonent yàlla muhammad nee na wallahi ma wataati al ardu baada al anbiya xayrun min abi bakr yonent bi moo géñ ne géñ naa ci màggaayu yàlla xeet wii kaw suuf ginnaaw yonent yi ku gën a baax aboubacar doxu fi aboubacar laa wax de waxuma waxuma yonent yàlla muhammad aboubacar ma wataati l ard baada al anbiya xayrun min abi bakr kon il faut ñu def ndànk ku baax ku baax la ku jàng ku jàng la borom xam-xam borom xam-xam la kenn du ko weddi waaye nag jël la di la takkal ay ndombo tànk di la màggal ba eggal la ci daraja yonent waxuma la sax ñu eggal la ci daraja yàlla tabaraka wa taala bokkaale weesuwul loolu mbokk yi àq yi nga xam ne ñun moom lañ yoral yonent sallallahu alayhi wa sallam yàlla di ñu ko laaj ci biir bàmmeel yàlla di ñu ko laaj ëllëg yowmal qiyam doy na rek benn hadis ñu xam ne yonent bi du sunu morom soo juddoo su élimaan ñëwee di la ngénte turu kan la ñuy wax sa nopp élimaan yaa ngi ci jumaa ji julli si ñi jàng yi ñu ngi ci jumaa ji tey julli si mani su ngeen di tudd doom turu kan ngeen di wax ci noppi liir bi est-ce que turu papaam turu yaayam turu maamam xeet bi mu bokk famille bi ko bokk bi mu bokk turu sëriñ bi ko ngente si abadan ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah liir bi muhammad ma lay njëkk a dégg ak turu papaam sax ñett ñaareel bu xam ne yonent bi du sunu moroom soo duggee biir bàmmeel bu la malaaka yi ne jógal toog ba nga jóg jëmm yonent bi lañ lay won ne la maada kunta taqulu ala hada al abdu muhammada muhammad mi loo doon wax ci moom bi nga nekkee ci àdduna kon kooku soo ko xamul fii ci àdduna boo demee àllaaxira am nga problème mu nekk ku ñu war a xam ñu yoreel ko ay àq yu dul jeex biir ak biti guddi ak bëccëg bokk na ci àq yooyu sallallahu alayhi wa sallam alayna hubbuhu dañ ko war a bëgg lu raw lu ñu bëggee sunu bopp lu raw lu ñu bëggee sunu ndey lu raw lu ñu bëggee sunu baay lu raw lu ñu bëggee mboolem ku nekk ci àdduna bi suñu yonte yàlla muhammad gënalul sunu bopp gëmuñu yàlla suñu yonte yàlla muhammad gënalul sunuy ndey gëmuñu yàlla suñu yonent yàlla muhammad gënalul sunuy baay gëmuñu yàlla suñu yonent yàlla muhammad gënalul sunuy sëriñ gëmuñu yàlla ak mboolem àdduna bi yépp nag moom yonent bi moo ko wax moo ne wallahi laa yumin wallahu la wallahi laa yumin giñ naa ci màggaay yàlla kii may bëgg a wax gëmul yàlla ñu ne yonent bi kan mu ne koo xam ne man yonent bi gënalu ma ko boppam gënalu ma ko ndeyam gënalu ma ko baayam ak wannaas ajmain laa yumin ahadukum hatta ahabu ilayhi min waladihi wa walidihi wannaasi ajmain sallallahu alayhi wa sallam moo wax loolu fan lañ toll ci loolu ñun ci bokkaale yu metti yi ñu nekkee ci jël ay nit di leen dendale ak yonent yàlla muhammad wala sax ñu paaseel leen yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam wala ñu bëgg leen lu raw ni ñu bëggee muhammad fii am na ñoo xam ne boo waxee mu olal suba ba léegi ci xutba bi ba léegi ñu ngi wax muhammad mais doo dégg sax jàkka ji di wax sallallahu alayhi wa sallam te loolu farata la yonent bi nee na ku dégg ñu ne muhammad te waxoo sallallahu alayhi wa sallam yow doo dugg aljanna anta baxiil yow ku nay nga albaxiilu man zukirtu indahu walam yusalli alayya sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na képp ku dégg ñu ne muhammad te waxoo sallallahu alayhi wa sallam yow da ngaa nay yonent yàlla muhammad toog na ci minbar muy xutba si juma sahaaba yi dégg ko mu ne amin amin amin ñetti yoon bu mu pare ñu wër ko laaj ko ne ko waaw tey dañ laa dégg ñetti yoon ngay wax amin lan la mu ne jibril moo doon ñaanal alkande ñetti nit may wax amin sahaaba yi ne ko ñooñu ñan la mu ne ku njëkk ki mooy ku fekke weeru koor te fexewul ba yàlla baal ko sahaaba yi ne ko ñaareel mu ne ku dégg ñu ne muhammad te waxul sallallahu alayhi wa sallam yal na alku mani amin fan lañ toll ci lool buñ déggee tur muhammad sax du ñu raisonné du ñu yëg ne wax nañ ko am doole wax nañu kilifa tudd nañ yonent bi gën ci mbindeef yi xayru xalqillah kenn ci ñun du yëngu te tey am na ñoo xam ne boo leen waxoon léegi gaa yi daaneel miiru jàkka ji mbëkk ko fan lañ toll mbokk yi ci bëgg yonent yàlla muhammad ñaareel mooy taatuhu topp ko moom dong la yàlla wax ginnaaw topp yàlla na ngeen topp muhammad amul keneen atiu llah wa atiu rasul topp leen yàlla topp yonent amul keneen يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسول واتقوا الله إن الله سميع عليم yéen ñi gëm yàlla bu leen jiitu yàlla bu leen jiitu yonent mbokk yi bëgg yonent bi farata la topp yonent bi farata la julit amul droit sànq ñaar yooyu ay àq la ci àq yum yoreel yonent yàlla muhammad ñetteel mooy ittibaauhu topp ko di xeeñtu lim doon def nga koy def lu mu tere nga bàyyi loolu la sahaaba yi rawee ñépp ñu nekk ci kaw suuf mooy doon xeeñ ci yonent bi ni mu doon dundee ñu jéem a dundee noonu mais tey ñun lu nekk dinañ ko roy ci ku nekk ba mu des muhammad léeg-léeg nga gis ay nit yoo xam ne li ñu sol kaw ba ci suuf dafa wuuteeg li yonent yàlla muhammad jàngale ci lépp nag xoolal tey ñi ñuy toppandoo ku nekk am nga fans mbër yi sax am nañ fans mbër yi nga gis ku watu léegi nga ni ko watu bi kan la mu ne watu diw la diw nii lay watoo ma ni musiciens yi sax am nañ fans sunu kilifa diine yi sax am nañ fans am na ñoo xam ne seen kilifa diine nu muy solo la ñuy solo mais ak a néew ci ñun nga gis kuy solo ni Muhammad di solo au contraire sax ku ko def dañ lay saboté dañ lay tuutil kenn dootu la jox gëdd te pourtant yont yàlla Muhammad lépp la yàlla jàngale pour ñu dunde ni mu doon dunde benn waay ci France dafa tuub tubaab la woon mu tudd Yunus dina ñor ko mu koy jàng ba mu xam ci lu bari ba mu jàng ni yonent bi di solo ba mu ko jàngee ba xam ko mu ne tey tey la àjjuma tey ni yonent bi doon solo laay solo ginnaaw ba mu sangoo ba pare ba def li mu war a def mu sol yére yu weex mu kaala ga kaalawu kaala gu weex mu sol ay xuf mu teg manto ci kawam mu yor yat mu tusngal ay bëtam sotteeku parfum jël soccom sex jubal yoonu jumaa ja nee dama dox ñaari mètre ma dajeeg naankatu sàngara bu mandi seen ma may dox ci naaj bi mu ne ma yaa muhammad yaa muhammad yaa muhammad daan katu sàngara moo ko seen muy dox ndax ni mu toppandoo yonent bi waa ji seen ko nan ko ya muhammad ya muhammad allahu akbar aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwa alghafur rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إخواني في الله ñettelu bi ñu yoreel yonent yàlla muhammad ci àq yi wala ñeenteel bi mooy tawqiruhu dañ ko war a wekk sallallahu alayhi wa sallam wekk yonent bi mooy lan mooy lu ñu laal ñu ne yonent bi nga wekk loolu nga wekk li jóge ci moom bu doon téere la buñ la koy jox ñaari loxo nga koy nangoo bu doon dañ la koy jàngal da ngay frenkulaayu simmi sa mbax ne xool am na ñoo xam ne tey bu ñu toogee ci kanamu nit dañuy simmi seen mbax ne frenkulaayu bu doon sol verre ñu simmi fay seen portable ne nguruf mel ne xar mu ñu war a rendi te tey bu ñu la doon jàngal hadisu yonent bi da ngay toog sànni say tànk doo ko sax jox gëdd yonent bi dañ koy wekk mbokk yi yonent bi yàlla moo ko njëkk a wekk ci alquran amul yaa muhammad alquran laa wax bu ñu jógee 114 saar la ñu dem bi tàmbalee fatiha ba naasi amul yaa muhammad am na yaa nuux am na yaa ibrahim am na yaa muusa am na yaa yusuf am na mboolem yonent bu ñu wax bu yàlla woone ko yaa yee yow diw ba mu des yaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala yàlla lan lay wax yaa ayyuhan nabi e yow sama yonent li ma tuharrimu yaa yaasiin taaha ay tur rek la ko yàlla di jox yàlla du ko wax mukk yaa muhammad e yow muhammad amul ci alquran même yàlla fi mu ko wax muhammad waxul yaa dafa ne muhammadan rasulullah muhammad yonent yàlla bi yàlla sax dafa weg yonent bi ñun weguñu ko yonent yàlla muhammad foog ñu wekk ko bokk na ci àq yooyu ñu ko yoreel mooy ixtiraamuhu warmaal ko warmaal yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam min gayri guluwin yii ma wax nag yépp boo koy def doo ci boole ëppal da ngay yem fi la yàlla yem loo mais benn jaamu yàlla bi ci ëppal bi tey ëppal ya gis ñenn ñi ni ñu ni leen ëppal yàqale seen aduna ak seen alaxira diina islam du diinay ëppal diinay wasatiya la diggu doomu loolu moo tax yàlla mu ne maa leen def xeet woo xam ne ummatun wasata xeet wu diggu doomu lu nekk da ngay nekk ci digg bi lu nekk ci digg bi ngay nekk amul ëppal amul mankeel lu nekk ci digg bi ngay nekk mais xoolal tey am na ci ñun ñoo xam ne waxuma la ëppal waaye bu fekkoon ne li nekk am na lu nekk ci ginnaaw ëppal mën nga ne ñooñu egg nañ foofu mbokk yi foog ñu delluwaat dund li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ngir bañ a ëppal moom yonent bi benn bis dafa toog rek am ñu ñëw ci moom ne ko yaay sunu sang yaay doomu sang yaay doomu mu ne leen eh ñooñu noppi mu ne leen laa tatruuni bu leen ma jay jay xam ngeen lan mooy jaayaate ñu wax la loo nekkul wax la loo mënul yëkkati la ba egg loola foo yeggul yow xam nga sa bopp balil insaan ala nafsihi basira ku nekk xam nga sa bopp yonte bañ ko gaay bëgg a yëkkati eggloo ko fu mu eggul teg ko fu mu nekkul xam bu ko wax loolu mu xamul mu ne leen bu leen ma jay la tatruni kama atarati nasara ibnu maryam bu leen ma jay comme ni nasaraani jayee isa doomu maryama man innama abd man jaam la faqulu abdullahi wa rasulu ne leen ma jaamu yàlla bi moo tax gis nga yàlla baat boobu la yo woowee yonent bi tabaraka alladi nazala alfurqana ala abdi araayta allazi yanha abdan wa innahu lamma qaama abdullah subhana allazi asra bi abdihi yonent bi baat boobu la gën a bëgg ñu koy wooyee mooy yow jaamu yàlla bi yow yonent yàlla bi mbokk yi foog ñu delluwaat xool nu ñuy bëggee yonent foog ñu delluwaat xool nu ñuy toppe yonent nan lañ koy wegee nan lañ koy respecté yii yëpp ñu bañ cee boole ëppal waaye foog ñu delluwaat xool nu ñuy royee yonent yàlla muhammad ndax roy ko mooy toog rek ba bisu gàmm nga lekk say cere lekk sa yàpp sa daa di sikkar daa ne loxo ci kaw bàkkaar ci suuf yàlla baal na la sa bàkkaar bu fekkee ci lii rek lañ bëgg a nekk juróom ñaar fukki at juróom fukki at téeméeri at nañu xam ne dañuy nax suñu bopp yonte yàlla muhammad kenn du ko màggalee noonu yonte yàlla muhammad kenn du ko royee noonu kenn du ko toppalee noonu yonte yàlla muhammad koo bëgg a toppandoo da ngay dund li mu fi indi woon da ngay dund lim doon dund da ngay jéem a def lim doon def loolu mooy roy yonent yàlla muhammad yàlla nañ ko yàlla mën loo اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك mbokk yi ci yàlla ci jamono bi ñuy wax ak yéen am na sunu mbokk julit yoo xam ne ñu ngi ci Kaolack ci benn dëkk bu tudd Basi département Nioro safara moo ñëw lakk seen kër yëpp amatuñu dara ñuy ñu sonn ñu jaaxle mbokk yi ñu bëgg kenn ku nekk ci ñun toog fii ajjuma bii di ñëw ñaan nañ la benn mbubb pour ñëw ñu benn mbubb benn mbubb mbokk yi ku joxe mbubb moomu yal na la yàlla solal mbubb mi mu solal leen yonent yàlla ibrahim keroog buñ ko sànnee ci biir safara si yonent bi nee na al muslim axul muslim jullit jullit mooy mbokkam yonent bi nee na unsur axaaka zaliman aw mazluma dimbalil sa mbokk su tooñee ak suñ ko tooñee yonent bi nee na man lam yahtamma bi uru umuril muslimina fa laysa minhum ku yittewawul mbiru jullit ñi bokkoo ci ñoom mbokk yi képp ku julli si àjjuma tey góor ak jigéen laaj ñu la xaalis laaj ñu la dara benn mbubb lañ la ñaan boo ñëwee fi ajjuma insha allah nga jox ko bilaal bi ñu dajale ko yóbbante ko mbokk yooyu ci kàttanu yàlla tabaraka wa taala yal nañu yàlla dimbali yal nañu yàlla woon dëgg wërsëgal ñu topp ko yal nañu yàlla woon neen wërsëgal ñu bàyyi ko aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu alghafur rahim wa aqim